googu bëgg gi bëggoon Serigne Touba bi seex bi mu ko see Gabon toog gam fa toog sëriñ Touba li li muy metti metti ak li muy wéet wéet nee woon ne suufu Gabon metti gi metti waaye Serigne Touba du yëg ak mettit ndax moom dafa amutoon ak ruux moom Cheikhul Khadim dara da ko daawut metti wala dara du ko yëg ngir lim siñante woon ak suñu borom waaye euh, Cheikhul Khadim euh, maam Cheikh Anta ci ñi gën a baax tax Cheikhul Khadim mën a wëlbatikuwaat Sénégal njukkal loolu maam Cheikh Anta Mbacke moo ko ameel képp kuy umma islamique wala moo ñoo ko ameel wala taalibi Serigne Touba yi mooy maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan moo ko wax ne ko Mbacke bañ a del Sénégal moom boo ko defut boo ko def rek ñëpp torox maanaam daanu ci kanamam jooy Cheikhul Khadim yeewi ko ne demal danaa del si Touba Daaru Salaam mbokk yi juróomi at mu metti lool tubaab yi transféré ko yóbbu ko baxru maa yomba maa yomba la metti moom Cheikhul Khadim ndax ñaari at la fa am baruma yomba ñaari at lafa sëriñ Serigne am ñaari at yooyee tamit at yu metti la ndax lépp loo xamante ne tubaab yi ñi ngi ko ko doon def foofu ci lambar na bi mu demee maa yomba dafa yàqu ndax dafa wax ne saaqa ñaata ñaata fukk waaw saqali xayru laaw fii maa yomba maa saa xal bi wax laa jan ba li rabbin xafun xat ma ani san ba waxaan ni nafa iblisa fii bari maa yomba lakka sukuru wa ridwaanu min nii saahidun saahidun raqibun sahidun raqibun atirun fii jasilati maa yomba Serigne Touba nee na lépp lu may naqari mbaa mu may lor yàlla daqal na ma ko teggil na ma ko ca dun bari tuddee dunu maa yomba nee na jaamu na fa yàlla jaamu koo xam ne raqib ak atib rek la koy seereloo ku dul yàlla ak yonent bi ak raqib ak atib mi nekk ci nday ak càmmooñam Serigne Touba nee na ñooñu lay seedeel natt boobu il boobu yóbbu nañ ko fa moo sàmbalaw be ginnaaw Mayomba le 1900 le 7 le 7 mars 1902 le 7 mars 1902 la tubaab yi daje nag ca Mayomba signé fa nag Serigne Touba ngir may ko liberté provisoire ngir mu mën a dellusiwaat Sénégal biñ ko mayee liberté provisoire xam nga dañ koy tënk rek ndax dañ la wax ne waxtu waa ngi waaj jot moo tax ñu bëgg koo tënkee rek ci Mayomba Cheikhul Khadim ñibbi Sénégal bi mu bi ñu ko dugalee ci bato bi moom Cheikhul Khadim gaal gi ndax gaalug napp rek gaalug pees ci leen dugal Serigne Touba waaye du gaal goo xam dañ koo jëre ngir Serigne Touba gaal gi da doon dem da doon da doon dañ ko faa fekk dugal ci Serigne tubaa muy napp ba keroog mu ñëw Sénégal Serigne Touba am na weer ak fukki fan ci bato bi bi mu yegsee ci waaxu Moussa Siri am na ñu ko doon gàttanu ñu ko yëgoon kilifa ya maam Cheikh Ibrahima Fall ca la bokk maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ca la bokk ak ñi nga ñi mag ñu mag ñi nga xam ne ñoo ko fekke woon ca Ndakaaru waaye bi bato bi teeree ba tubaab bi génn uyee maam Cheikh Anta Mbacke maam Cheikh Anta Mbacke uyu wax ne dafa ñetti ñetti escalier yi fekk Cheikhul Khadim ci biir bi mu ko nuyoo mu ne ko Cheikh mu ne ko Mbacke mu ne ko waat naa wàcc naa wàccaale ku ma yaakaar Cheikh mu ne ko Mbacke mu ne ko dem naa juróom-ñett at yu manqué waaye ba ñu ma rusuma ko topp sama tànk daal di wàcc maam Cheikh Ibrahima Fall dalal Serigne Touba ca Laminas mooy njëkk a dalal Cheikhul Khadim moom maam Cheikh Ibrahima Fall ca Laminas ginnaaw ba Serigne Touba. jógee ndakaaru ñëw ci kër maam Cheikh Fall jóge fa nag doon eh, wër wëram gu siiw googee gis na eh, Cheikh Moussa Ka nee na ñeenti fan gaawu ci weeru sombaan la wàcc ndakaaru dem ndar talaata benn fan ca koriga la gonte ndar dem Louga kër sëñ Cheikh Coro àllarba alxames ajjuma gont fanaani Thiès daal di dem kër Pilo Cissé taxaw Sanosi muy juróomi fan ci weeru Sanosi foofee la toog ba weeru koor ga jeex ca la wax ne si wajhul lasi yuhibbuni yabyadu yawmal wujudi suhuda tabyadu ginnaaw bi mu jógee foofu nag ba 1903 la ko tubaab yi woo nag ca ndar moom Serigne Touba 1902 la ñëw benn at wala juróom-ñetti weer wala juróom-ñeent la Serigne Touba am tubaab yi woowaat ko ndar bëgg koo génnewaat dëkk bi Madagas Madagascar waaye ginnaaw ba li ma leen waxoon rek exil bi mooy yoonu géej gi waaye gànnaar mooy payuk Serigne Touba gànnaar googee fële Serigne Touba am juróomi at kon gànnaar googee ci lañ leen di jukkil tuuti rek ak bi Serigne Touba dikkee gànnaar dem Téyeen ak bi mu jógee Téyeen ñëw njaareem ca Muqaddimatul baaraka ak bi ko Seexu Xadim ak bi mu santaane màggal gi kon noonu lañ koy tënkee rek mu gaaw ndax waxtu wi dan dafa mel ne dañoo xaw a jat kon li ma leen wax ci payu Serigne Touba muy lim doon liggéeyal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam googee la ko yàlla fayee Serigne Touba nee na gànnaar ban ma fa yóbbu Cheikh Sidi mi ma tegoon ci loxoom nee na yóbbu nañ ma ci ay barab yoo xamante ne nee na ak gàdd la goo xam ne dara amul dara wéet lool amul ndox amul dara waaye suñ borom mi nga xamante ne mooy teral Serigne Touba jël njariñu àdduna ak alaaxira teg ko ci loxoom fu mu nekk day mujj mel ni ab jant mag ñi bàyyi koo Sénégal di topp leeruk Cheikhul Khadim ba yegg si Murtani xumaag googee te mooy saxwatul maa yi ak jaraar yi ak sarsara ak tontu muxsin Serigne Touba dafa wax ne qad jaani suhla min takrari la siyama inda al biiri alxayri jaraaru hamdi wa sukri li rabbin xaadali minan fii sirri wal jahri mahbuban li abraari nee na li ma daa sàkku ci sama borom fu ma toll dama ci daa jot rawatina ba ma nekkee jaraar ya fa teeni yiw ba maa ngi sant yàlla mi ma indil xéewal ci lu nëbbu ak li ñu feeñ ma nekk ñu baax ñépp bëgg foofee la wax ne hamdi wa sukrin li man ku lii bihi saara lahu ridan doona soht inde sarsara lahu sana'i wa ridwani bila siqatin musqadani min bani dayman ansara lillahi lada kulli abarin makrumatan minha intahalna wa fiha jamma man sara innal lasina ila sarsara qad qasado siaratin farahu darin aw sara mbokk yi la Sëriñ Tuubaa tàggoog waa sarsara de ñaane suñu borom yàlla suñu borom defal ko jàmm ñi nga xamante ne ñooy sëti Mustafa alayhi salaatu wasalaam yi nekkoon sarsara dañoo kenn doom ënd na ci ay bayit muy seex sidiya dane innama seexu ni'matun an'amahu llahu biha ayatin min ayatihi fa rusulu law lam takun bil mustafa xutimat xul naa la anta rasul waju taliq lakkinna lawul xasanaatu kun law xusimat yowmal jawa bayna ahlil kufri maxtaraxu seex saadu abi nee na seex sidiya baaba nee na sëriñ tubaa xéwal na ci xéwal yàlla yi nee na mustafa alayhi salaatu wasalaam bu mujj toon ci yonent kon ñu ne yow sëriñ tubaa yaay sunu yonent waaye lu mën di xaw yow sëriñ tubaa li nga def ci lu baax ak li la yàlla fay buñ ko joxoon yéefari ëllëg kenn ku ne am ci lu la fegal sa war a ëllëg maanaam saw yiw yow sëñ ko tegoon ci balance jël yéefari teg ca balance bee saw yiw day wat yéefari yëpp ñu dem àjjana ngir li la yàlla faye kooku Seex Sidi Baaba moo ko wax ci sëñ Tuubaa beneen seex ne ko yaa seexu ataaka taqdiman wa walaaka fil jahri taj diinu diinullahi mawlaaka yow daal Sëriñ Tubaa li tax yàlla andi la murtani mooy kuy nelaw nga yee ko ku suufee nga yëkkati ko am aajo nga faj ko ba yàgg mu ne ko maa fil jëli sarwaaka maas bii moom sa sa morom newu ci maasub jamono sa morom newu ci kon mbokk yi lii mooy tënk bi ci Murtani mu ñëw 1907 ñu yóbbu ko Thièyène Jolof juróomi at tubaab yi di tëj di dóor ngir eh, ñi nga xamante ne dañ doon jógee ci goxi Sénégal di dem Thièyène di siyaari Sëriñ Tuubaa bi mu nekkee Thièyène juróomi at tubaab yi ne pexe jeex na comme dem na ci géej gi dem na Murtani yóbbu nañ ko Thièyène di tere doomu aadama yi dem ci moom te di ñaa ngi dëlëf dëlëfi nan ko yóbbu njaareem ndax njaareem sori naa Touba sori naa gox yëpp nekk foofa ñoom Serigne Touba nee na foofa mooy seenu toroxtaange nee na foofa mooy seenu dellu nee na foofa la ma yàlla di yombale lépp lu ma jafe woon Cheikhul Khadim wax ne raamu masir ila Jurbel Serigne Touba nee na bi Touba bi sàkkoo sama dox nee na lasasi sin ko sàkku nee na lasasi sin boobu njaareem romboon naa ko mu gën a bokk ci pakk yi gën a lëndëm ma ne ko danaa fi ñëw lasasin bu ma fi amee juróom-ñeenti at danaa la def danaa moom leer leer bu leer te nag ci leeru njaarim lay bàyyi ko mbokk yi barab pàkk boobee pàkk bu seetlu boobee fa la Sëriñ Tuubaa am fukki at ak juróom nee na rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na njaareem am fa fukki fan ak juróom yoo xam ne man Sëriñ Tuubaa génnu ma Moustapha alayhi salaatu wa salaam génnu Sëriñ Tuubaa nee na kër googee maa ko dëddal sama bopp nee na suuf sa fépp bu ne kaamil lay taxawee muy dëkk bu boobu bu Sëriñ Tuubaa nee na ku fa jaamu yàlla benn ñu fay la fukk ku fa jaamu yàlla fukk ñu fay la téeméer dañ koy multiplier te diggante kër Sëriñ Tuubaa googee néegam boobee Cheikh Moustapha fekkoon ak jumaam joojee fenn foo ci gis Sëriñ tubaa teg na fa tànkam bu sell boobee jumaay njaareem Sëriñ Tuubaa moo ko rëddal boppam jumaay Tuubaa Sëriñ Tuubaa rëdd ko murid yi dañuy daanu Sëriñ tubaa 1895 la gëj Tuubaa ba 1927 Cheikh Moustapha andi ko Tuubaa Cheikh Moustapha sëñ bu sëñ Mbàkke moo rëdd jumaay sëñ Modou Moustapha moo ko fondé mais jumaay tubaa sëñ Touba rëdd ko sëñ tubaa jumaay njaareem la rëdd am fa fukki at ak juróom wax la mu wax ca dëkk ba ne dëkk bii dëkk bu yàlla barkeel la leeru yàlla moo fi nekk alxuraan pépp suuf wu ne ab kaamil lay taxawe mbokk yi ci dëkk boobee la Serigne Touba santaane bis bii kon bis bi ndigalul Serigne Touba la bis bi képp ku ci feeñ wala képp ku ci jëf da ngaa jëf ci ndigalul Serigne dix-huit wala mille neuf cent ci la seexul xadim digle woon ñu màggalal ko màggalam gi moom moo ko njëkk defal boppam digleel ko boppam ak taxaw jumaay Tuubaa ñaari ndigal yi la fi Sëriñ Tuubaa bàyyi woon taxawal ko bisam bii kan la ko dénkoon Cheikh Moustapha Al Karim dafa woo sëñ Balla Fall yi yëkkati moom Seexul Xadim kon ñoo ngi jégalu ñoo ngi jégalu baax liñ bëggoon a euh, lépp rek xajut ci euh, programme bi ndax xat bu xat waaye yéen ji moo doon buntu bu ñu yegg rek jot koo leeral ndax ni ñu ko parafito sax dafa xaw a xat moo tax ñu parafito ko noonu waaye li ma ci gën a am li ma leen ci bëgg gën a bëgg a leeral rek mooy ndigal li nga xamante ne Serigne Touba moo ko defaloon boppam joxe ci ndigal ci 1917 wala 1918. ca boqatul woo wooteel ko boppam Cheikh Moustapha ba mu fi jógee Cheikh Moustapha doon ko woote njaareem waaye ki nga xam ne moo ko indi Touba muy Cheikh Mouhamadul Fadilu Mbakke moo waxoon ne bisu Serigne Touba bi yée yéene nañ ci mbokki jullit yëpp ak mbokki taalib yëpp la ca Serigne Touba dige woon képp ku ko def yàlla suñu borom fay la kon na ko ñëpp defe si Touba kon looloo waral Cheikh Mouhamadul Fadal andi ko Touba ba ñëpp di ci barkeelu ñëpp di ci jariñu ba tey ji macha allah gis ngeen dëkk ba la fa teew ay ci ay ay ak mbokki taalibe ba mu fees dell ba fii ci Argentine kon lii mooy ndigal lu Serigne Touba li waxoon ne képp koo xam ne sa mbég mooy sama mbég bu bis bi dikkee nanga ma ci fàttaliku di ma ci sant la yàlla kon ñoo ngi sant bu baax di gërëm mboolem ñi fi teew ñëpp euh, ci euh, jëwriñu Serigne ba ak mboolem waa jëwriñu fédéral Serigne Bamba ak mboolem daayira yi fi yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu wa kullu am wa antum bi